ni mu leen ko waxee sàng ñi mooy waa 28 euh, pro te ñi ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di Mahfouss Mbengue euh, nekk ki nga xamante ni moo nekk euh, fi nga xamante ni moo di compagnie Actel Kitel di Bawol nekk ki nga xamante ni moo di trésorier nepp lépp nekk ci bopp bi nekk lépp tey ñi ngi jàkkaarloo moom tey festival bi nga xamante ni tey moom la ñuy def lépp loo xamante ni muy dugg ak la ci loxoom la jaar max ñi ngi lay ñi ngi lay nuyu bu baax a baax di la di laat maa ngi leen di fay di kontaan ci interview bi nga xam ne moom ngeen wax ne moom la ngeen bëgg a def si man maa leen di ziar di ziar ñëpp di nuyu waa compagnie bi kenn ku nekk di leen remercier aussi di leen wax ne maanaam gone mag ba ci xale ñoom ñëpp kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax waaw. max max euh, li ñu koy laaj mooy ndax dafa doy waar ci ci ci compagnie bi ndax moo yor lépp mu daanaka max ñu ngi lay laaj euh, li nga xam ni moo di festival bi muy nekk cinquième édition max festival bi nan ngeen koy waajee max festival bi. nan ngeen ciy duggee nan ngeen ciy génne max naka lay demee parce que yaay lépp dégg naa yaay lépp yaay lépp waaw <laughs> xam nga yaay lépp dafa rëy man ak festival daanaka maa ci gën a tuuti parce que dan wóolu ma lan def di ma denk seen xaalis ma leen koy teel di leen ko sàmmal aussi fas yéene tamit maanaam ba dara loo xam ne lu leen naqari ah, du ci am ma ciy góor di ci sant yàlla bu baax a baax waaw ah, beneen bi stop mooy festival moom maanaam may maanaam dimbalul yàlla rek lañ ci mën a am parce que liñ ciy def ñun dañuy dem ba mu yàgg sax boo toogee boo koy xalaat da nga naan noonu non non parce que euh, maanaam da ngay dem a dem a dem a dem ba lii ñëw moom da nga naan lii fan la jógee mais nag lépp ci mbaaxu waa Mbàkke quoi parce que boo xoolee autorité benn joxu la joxu la daanaka benn bu la si jox lu mat cinq cent mille amul ba pare nga def loo xam ne ay millions la tey jii ah kon wax dëgg yàlla euh, ñi ngi sant population Mbàkke gépp quoi waaw waaw max nag dañ leen gars yi dañ leen ne faaw ma laaj ko mm-hmm. gan yi nga xamante ni ñëw nañ dégg naa région bi xaaj bi yëpp ñëw nañu mm-hmm. Euh, lekk gi chaque jour depuis quatre jour dafa bari gars yi ñu ngi coow naan gars yi fan la ñu jëlee xaalis ndax autorité jàppale nañ leen waaw. waaw waaw ñun wax dëgg yàlla maanaam si suñu yar ak suñu teggin euh, du amee ay kilifa wax dëgg yàlla suñu organiser lu mel nii danañ dem ci ñoom ñoom it jàpp nañ jàpp bi tamit euh, xeebuñu ko waaye bu fekkoon ne mën nañ ko yokk ñu dimbali yokkuñ parce que ku fa ñëw keroog ci euh, euh, ci école bi xam nga ne dëggantaan njaay ne lii moom wax dëgg yàlla nekkul loo xam ne lu ndaw la mm, ñu ngi sant monsieur le maire di sant tamit le député Abdou Mbacke Ndaw ak responsable yi nga xam ne ñëpp ñu ngi fii ci Mbacke ñoom ñëpp wax dëgg yàlla def nañ def nañ li nga xamee ne moom maanaam dugal nañ seen loxo leneen li si des tamit ñi nga xam ne ñooy notable Mbacke ñi nga xam ne ñooy ay bonne volonté Mbacke wax dëgg yàlla ñoom it kenn demul ñu des ndax kenn ku nekk jël na sa sa sa li nga am def ko ñu booleeg suñuy déem ak ñun ak suñuy daqaar ñu ah jàpp ci ba bis ba ba ba mu dem waa Mbàkke aussi mënuñu parce que ñii dañuy maye ceeb ñii di maye diw ñii di kon nga wut tamaate ak jën ak yàpp day day yombal affaire bi loolu kese moom moo tax feem ñu noonu rek daal lañ ko defee ci kattanu yàlla ba yàlla suturaal ba tey mu jeex ci kattanu yàlla waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf kookoy Mahfouss Mbengue jërëjëf kontaan nañ a baax a kon sant ñëpp gërëm ñëpp ñëpp képp koo xam ne teew nga fii ci ba ban commencé ba léegi nii ñu ngi lay sant di leen di remercier aussi artistes yi nga xam ne ñëwoon nañ fi ñoom ñëpp man leen leen kontaan nan wax salaam. tey nan nga dundee festival bi tey. sant yàlla bu baax di kontaan di leen ñaanal rek année bu jot muy gën a doon neex rek parce que vraiment kontaan nañ trop ndax man moom yàlla daa dogal sama soxna sa aaw buuru kër moom dëgg yàlla di sama xol di sama genn wàll dëgg fa yàlla lépp lu mu bëgg rek man dama cee dàq rek ndax fas wàll tey moom a tax a jógee fa ma may liggéeyee Dakar ba moom dëgg fa yàlla pour teewee ko ma ko jël na kuy rek di leen ñaan rek sant na Ndongo Fall baax a baax ak yéen xale yi di leen ñaanal jàmm ngeen di ba ca kanam ak kanam waaw loolu rek laa leen di ñaanal waaw sax jërë ngeen jëf kontaan naa trop sama xol sedd na macha allah jërëjëf waaw jërëjëf gars yi ñu ngi ñëw nga xamante ni moo di Bamba DST guddi tey ñëw ci cinquième édition festival bi nga xamante mooy acteur di Bawal tey euh, nan ngeen dundee festival bi ak jour 31 bi ngeen bàyyi njaboot ci kër ñëw ànd ak ñoom ñëw ci bés tey nan ngeen ko dundee. waaw d' abord dinaa leen sant yàlla di jaare waa festival bi yëpp di rafetlu waa ah, ah, nga xamante grand Roxa Fall bi nga xamante ne bii lii lépp moom ah ñu ñaan yàlla ku ñor fanam tam may ko wéram yaa koy fekkee lu bare bare bare wax dëgg yàlla neexoon trop neex na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah leen wax masa coona affaire yi métti di def te di Modou Mbaw téer bu mag bi euh, di cinquième édition la macha allah kontaan nañ torop affaire bi neex na torop yéen ñaan ngeen fekk ay at yu bare bëri macha allah nit amul lu dëkkam rawatina affaire aar daal macha allah en tout cas kontaan nañ torop initiative bi rafet na torop organisation bi macha allah yàlla ngeen ko fekk ay at yu bëree bëri macha allah merci beaucoup. ngi doxaat ci biir ba filtre nga xamante ni moo di ba boo xam ci Baye nan nekk biir ak culture di Bawal la nan ngeen dundee festival waaw maa ngi lay nuyu Laat Fall di nuyu site bi nga àndal di kontaan ci bu baax a baax a baax a baax voilà lii dañ cee kontaan rek nekkul lenn lu lu ñu kontaan ci parce que ñi fi ñëw ñëpp dañ leen demal tey ñu tamit bi ñu wootee wuy si nañu wuy si nañu wuy si bu rafet en fait boo gisee ñu def ko mooy taaral Mbàkke xam nga wan ne Mbacke am na culture Mbacke am na ay talent Mbacke am na lépp moo waral la ñuy créer festival bi mooy cinquième édition nag waaw cinquième édition baa ngi nii di ñaan yàlla nag mu nekk ay édition édition édition dem ba ay contrat ñëw ci dem ba gars yi di dem Europe partout fenn fu ne fu fay dem quoi ci aar bi ñu ngi koy ñaan te di ñaan bis nag la fête soit belle na jeex jàmm bonne heureuse année laay wax lépp nag yàlla jàmm yàgg tubarkalla kii mooy président bi nga xam ne tubarkalla <laughs> mi noonu merci beaucoup